thank you dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha allahu rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di xam ne góor nga ko saxal. dinaa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen a ñeneen. yaa taxaw wax lii. waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax. di xam ne lépp dëgg asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info ah. euh, actualité oblige du nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daaytu Moussa Chidine wala Moussa Chidaat muy Seydi Mouhamadou Moussa Fassi di ko ñaanal yàlla gudd fanam yàlla aar ko yàlla sàmm ko ak suñu euh, mam Cheikh suñu capitaine ak mam Babacar euh, tey nag ñu ngi fii ci école de lutte Falaye Balde ñëw si ci champion. gannaaw nag kombaam ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux ba mu taxawee ba tey gisuñu ko tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom ndax combat bi tàmbali na Ama Balde doom Falaye Balde jaat Falaye Balde toog na 4 ans bëriwul ñëpp ne nag moo ko teg boppam léegi dañuy waxtaan ak moom rek wala xale soxla. waaw ñoo ngi ziar Fatma ma ngi ziar bu baax waa baax dina ñaanal jàmm yow dina ñaanal tawféex loo bëgg si aar beeg lépp yàlla na suñu borom defal dañuy sant yàlla nag julli si yonent di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di sant sama pa di ñaanal sama papa yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di sama yaay yàlla ko fi yàlla bàyyi ba mu gën a fekkee sama njëriñ di sant Serigne Saliou Mbacke bu baax a baax di santaat Serigne Saliou Mbacke bu baax di santaat Serigne Mbacke bu baax a baax di sant sama yaakaar tey ëllëg sëñ Abdou Karim Mbacke maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam ak kanam parce que am na njëriñ di sant sëñ Ateex bu sëñ Fall bu baax a baax di sant sëñ Tàkko di sant sëñ ah, di ñaanal sëñ Afe yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di sant ñëpp di sant Serigne Fall Mboro di sant njabootu Seera Fall yëpp xam na di sant yàlla bu baax a di sant nag Pikine bii na ma fekk fii maa ngi sant waa Pikine bu baax baax di leen gërëm xam na kon li na wax rek quatre ans moo toog bëre waa Pikine ñoo ma ëppalee bu baax a baax dooleel ma kàttanal ma xam na ba nëmm ma dara maa leen ñaanal yàlla na leen suñu borom defal jàmm bu baax a baax a baax. Mhm. Ama dugg ci kalaaf am na mu def ba jéggi daal tey ku ne Pikine boo ne Pikine rek automatiquement caatu Falaye Baldé léegi ñu ne Ama loolu yëpp da koo xaw yàq ndax ci quatre ans yi topp benn mbër muy Modou ba mu xaw a pénaliser carrière non bu ma déggee ñu naan topp mbër daf may naqari parce que bu fekkoon damaa topp mbër rek aw ma mérite bi aw ma dara sax mënoon na ma bañ a jël waaye tey tey tey da bëgg li yàlla suñu borom xañ la ko yàlla suñ borom moo ne damay toog quatre bañ a bëri dama yàlla bu baax a baax. xam nga tey man maa nekk produit boo xam ne nekkul woon bu ma uh, kiiwul si ma la ne waaye tey adversaire bu ne bëri peut-être parrain saa mun na def feebar promoteur bi ñëw dañu jàpp ko fii xam na ñu def ko nii kon nekkul sama coono nekkul nekkul man maa ko bëgg tey promoteur bi dañoo jox avance un mois et quelque moom problème mu justice waaw ñu nekk si loolu nekk si loolu après combat bi demee noonu ñu toogaat di dem bay préparer sama adversaire gaañu comprendre kon man mu ma si dara lu ma waroon rek laa def maa ngi woon samay mbokk di entraînement yàlla suñu borom moo ko nëmbee noonu dañuy sant yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. wax nga ko léegi mais yow lépp loo mm-hmm. que da nga am foo jógee xam moo la waroon a may loxo duñ la may na bëri roi des arènes. Mm-hmm. mais bëgg moo tax gars yi ne dégg nañ sax gars yi même Pep Pape Diop ba Stade ñu ngi noonu moo la xaw a sonal Oh, tey kuy liggéey di ñaan yàlla da ngay ñaan yàlla avancé kuy léegi di liggéey da ngay yàlla doon roi des arènes waaw da ngay doon roi des arènes waaw la fa demee lool dong la woon loolu dong la ma doon ñaan yàlla doon roi des arènes ba nekk xale ba léegi kon ku si mel ni sama doomu nday Alaaji Mbay comprendre si diinu Iran yi yooyu lañ nekkoon di ñaan yàlla Ama Ama Baldé futur roi des arènes mais tey mënoo liggéey nag ba egg war a bëri roi des arènes naan maa ngi dem di bëri ji keneen wax dëgg yàlla loolu rek tey fii ku sañoon mais bu yoon jeexu waaxasu du jeex xale yu ndaw lañ ñooñu si xam na xale yu ndaw sabar bu bëgg dee xam na loolu dong la xam na dañ koy nangul tamit suñu père Pape Diop parce que suñu papa la lépp la waaye tamit ku sañoon doon roi des arènes. Mm. mais ba tey yéen ñaar fan ngeen toll bien vrai que ne jël nga combat ak ak Modou boobu dañ koy bàyyi seeti leneen bien mais ba tey contrat day am. Modou de wala bu bëree lu mën a dafa tàppet kan lay bëree keneen ku ñu bëree ku lu àmbal ne moom koy dama dafa war a di julli di ma ñaanal ma daan Gris Bordeaux ñëwaat bëri bëri man. mais bu bëri moom mais bu bëri moom kan muy bëri. Ah, ay jom mais bu waa ñu waa parcelle bàyyi ko mu la bu bëree la. kan keneen la kan lay bëri dafa am xale bu ko laqal xale boo xam moo la dàq ñaari yoon. bu ñëwee door la mbéy ne la jéenal fii jéenal fii bu bëree moom kan lay bëri. bu bëree moom mu la fan mu la bu bëree dafa tapet. grand beneen avance boo jël tapet na. mooy roi des arènes. waaw mbër yëpp xel yi xel yëpp si mu loolu lañ dem. mooy mel ni tey su ma ko jëlee daan ko mbër yëpp am bale. si léegi su bëree mais tapet la. su bëree waxtaan keneen bàyyi la. ku mu mën a bëree te xaar ma tapet la man lay xaar. xam nga dafa ne woon dafa jël amaat ne am dama koy xaarul lekk xaasam waaye insi man man lay. xaar maa ngi xaaru. <laughs> léegi Ama Baldé nga amaat yeneen proposition macha allah nag xam danaa jar nag. Mm-hmm. ba lay def interview eh, mm-hmm. mm-hmm. ah, yow yow yow yow yow lan sa problème ak kii kii yi quoi mag ñi quoi yow yow lan la lu xew. mais dama bëree samay rax dama bëree samay morom sax laa astafurlah dama bëree samay morom bëree ñoom jëflante ak ñoom ñoom ñëpp après moo fi des Gris Bordeaux sama mag yee fi des après sama rax yi. yow Gris Bordeaux dañoo ñëw la ko nii. wala yaa ko choisir wala le fait que mu jugee ci Balla Gaye xam nga. ñu naan combat bi yooyu noonu est ce que nekkul yow xam nga da ngaa mbong est ce que defoo analyse benn. non analyse. Ah. xam tafaatin dañ ma tegal tafaatin. Mm-hmm. tegal ma Modou Lo mm-hmm. mais tamit doo gis Modou Lo di jël taf doo gis Modou Lo di jël tafaatin après xam a par exemple mbëri dañuy dawaawaale rek bëgg daw après ñu ne ko Ama Baldé mu ne non du am parce que moo ko soxlaa di bëree moom dafa dem jël ji euh, Modou xam na moo tax après ma dem jëli ci Gris Bordeaux waaye Tapha Gueye dama koy nangul xam na fii ku nekk sa choix Tapha loolu dong la. mais Gris Bordeaux bañ ko kiiwee tegalee amaatoo beneen choix. non non bu Gris Bordeaux mbër la champion la. te nag bëggoon na bëri ak moom. waaw tamit kuy ñaan yàlla rek dangay ñaan yàlla bëri ak Gris Bordeaux parce que Gris Bordeaux mbëru hmm. kuy ñaan yàlla dangay bëri ak moom xam nga tey tamit ma liggéey rek lu tax ñu bëri ñu bëri. te dañuy li nga dégg combat bee moo xaw a kii tuuti. ban nga gis ko combat ak Balla Gaye. waaw na fa def. waaw lu mu fa def rëy na. Ah. waaw lu mu def rëy ah. même bu bëree woon Gris Bordeaux ba Balla sax sama sama yoon la bokkoon. Gris Bordeaux dafa bokkoon sama yoon. Ah. Mhm. waa voilà dafa bokkoon sama yoon ñu war a bëre dañuy bëre. Mhm. mais xam naa ko bu baax a baax Gris xam naa ko bu baax baax. yaa ngi ko doon suivre ma ne ba mu bëree baaboo xale bu ndaw laa woon. Mhm. mun naa la wax ñu doon xotti. kii waa Fass yi te surtout waa Fass oh. di tëmbal waa Fass ñuy dem di ñu leen yóbbu. man si laa bokkoon. Uh-huh. waa mu nekk xale ma nekk xale bu ndaw. Uh-huh. doon supporter bu kii Baboy Baboy ba mu ko daan dama daw Pikine ba fii. Uh-huh. xam na xam naa Gris Bordeaux bu baax a baax a baax a baax. Mhm. nga jël avance am te dañ ne waa Fass dañoo mën bés dégg nga ko sax sorti bi def gis nañ def nañ seen benn AG gis nañ père Tafa Gueye euh, ki nga xam te ne moom mooy a euh, mu tudd Abbas Ndoye. kati waaw père kati ah mhm. Fass Ndakaaru ngay dajal Fass Ndakaaru. waaw mais xam nga tamit kër bukki du ñàkk coow. kër bukki bu ñàkk coow. Eh. <laughs> te ay munu ay munu weesu bàyyi dee na. Eh. waaw noonu la nit booy bëri moom. Eh. sa seen gox sa goxam. kenn warul toog gox seen gox kenn warul toog loolu daf ñuy neex parce que ñun ay mbëru coow lañ ñu di ah di ñëw ana mbër gunge ay supporters am quelques supporters ñëw dañuy bëgg àdduna bi yëpp jéem ñu def ko événement. xam na tamit nga xam boo daanee mbër boobu ñu xam ne champion la daan xam nga. mais kan la. Fass Dakar. a ah, yàgg naa fa duggu de. mais Fass Dakar ah foofoo dugg. dugg naa yàgg naa dugg Fass waa Fass yàgg nañoo dugg Pikine. comme rek yàgg naa dugg Fass. kan moo fa kii yoogu kan moo fa dominé fa dominé gu. ah non yàgg naa dugg Fass moom ah. yàgg naa dugg Fass. Mm. mais est-ce que Gris gis dégg nga lu mu wax. Mhm. Gris Bordeaux bii ñu gis. bu xat koor Gris Bordeaux amaat benn entraînement at yi ñu ko jox yëpp. Mhm. est-ce que attan nga boobu ama. waaye dégg nga ma ne keroog ba gisee Gris Bordeaux jugaat ne bërët. defaraat toogaay bi waaw mooy si combat bi xam naa <laughs> waaw gis naa ko bu baax baax dama defaraat sama toogaay bu baax baax mhm. nekkaat si entraînement yi woowaat paa yi def réunion <laughs> da laa dugal ci waaw xam na kon xam na kon Gris Bordeaux bu saf sap bi laa nar a loolu laa doon ñaan yàlla waaw déggoo ma ne la Gris Bordeaux sama xam man sama kër maam moo ñu mét naa damaa jëlaale sama waa kër maam sax joxaale ko joxaale ko Gris Bordeaux na ko mu njow ma dimbali waale ko xam nga si xam nga sama waa kër maam dañoo waroon ñëw nekk si man uh-huh. joxaale naa waa sama kër maam joxaale la uh-huh. jëlaale sama yaay bii nga xam ne waa mbir naa la delloo waale joxaale la ko pour combat bi gën a a neex waaw a kii Gris Bordeaux ah non non kii Gris Bordeaux sama mag la ah, la moo nga ko ko jox tam pour bis bi ba ma bëgg bis bi neex ñu xaaj ko waxtaan naa sama supporter na bu leen baax doola jël leen xaaj ñu jël xaaj waa Fass jël xaaj ñu jël xaaj. waaw waaw laa bëgg. nga xam bu ñu yuuxoo Ama Baldé fii yuuxu gir Bordeaux fii. te waaw waaw gis na loolu waa mais waxtaan naa sama supporter rek. Hmm. dañuy jël xaaj bi par la force. Hmm. bu ñu ëppal. mais dégg nañ staff quoi ne ñëpp xam nañ ne Fass staff bi moom kenn amu ko. ci hmm. Dakar. Ama Baldé est ce que tamit bu nga ko déggee sa fit kiiwul tamit Ama. waaw loolu dañ leen koy nangul dañ leen ñoo yor staff bi lépp ñun dañ leen ko nangul ñun ay kii lañ ay Baye Fall lañ si waaw ay booy lañ xam ay booy yu ndaw a xam na dañ leen koy nangul ñoom waaw waaw waaw ñoom ñoo yor staff bu mag mag bi ñoo yor borom million yi borom xaar xam na dañ leen koy nangul xam na kontaan si bu staff bi gis naa leen xam naa gis naa leen ndax kenn ki rek ndax Ama Baldé la caatu Fall bu ndaw a ndaw bi moo ñu <laughs> gis naa leen ñu def AG ndax Ama xam na na moom boo ko jëlee doo toog di sa fit du toog xam na mm-hmm. parce que mooy loolu kon lu ma la waxoon rek dugg naa seen caay ñoom ñëpp mm-hmm. xam na noonu la rek lañ a ah. xaar ci yow gis nañ Ama dafa mën gis te da nga gars yi dañ la namm mais a gis sa combat ak Gris ndax Gris nag neen duna doo neen affaire da ciy toj kaan de pàcc di dégg ko ma ah. man xam naa mooñu si hmm. hmm. gis naa gis naa Gris Bordeaux te ñun ay sportif lañ xam naa ne ba Ama ñëwee ba léegi toogul hmm. kon sama sama sama kon sama gars xarit defaraan nañ toogaay baax a baax di xaar. Mhm. Mhm. mais saa mi doo gaaw a gum jàpp temps comme que gisagoo ko ndax xam gars yi moom léegi da a gaaw ci ay une minute ay moom doo ko jàppale gum temps ndax day teel. waaw juróom-ñaar sëñ Fall bi moom su ma ko dóoree rek anawaa avance. Mhm. waaw juróom-ñaar sëñ Fall bi moom su ma ko dóoree rek waa avance incha allah. Ah, daa am loo doon wax Modou ko. Euh, euh, sama nekk roi des arènes. Mhm. ni ma leeree ni ma leeree damay nekk roi des arènes su ma ko deewee damaa jëm mais wax naa moom ni mu la leeree wala daa. waaw mooy roi des arènes rek xam nga mënoo ñëw di bëgg a faxasalu. non ah, mais Gris moom du ko yooyu. non Gris non du ma wax. Ah, mag la sama mag la. xeex day bëri. déggoo ma man maa ngi di jàng yooru. saa mu xëyee yooru laay jàng. saa mu xëyee yooru laay jàng. kon doo xeex ak yooru tamit mais du ma ah. xaar yooyu yëpp. lan laay doon di sama kanam rafet. di war a xaar ku Gris Bordeaux di ñëw dal sama non damay yooru. Gris day kii day dóor gauche droite. waaye ma jàng yooru rek. fii làmb moom méttiwul. ah bu gars yi di bu gars yi xeex man jàng yooru. Hmm. Mhm. lan nga leen dox si combat bi ak est-ce que Ama Baldé daan na bëre adversaire bi ëpp dayo moom amul adversaire yu ëpp dayo yooyu affaire yi amul loolu xam nga affaire lan la liggéey la rek liggéey jëriñoo la moom bu gëmee ni mun na ma na ma duma man na su ma gëmee ni maa ko mun naa ko duma. da ngaa duma Gris Bordeaux. non ku nekk rek duma moom weesuwul nit ki daanu rek la ñuy wax. mais loolu sa xel. dégg nga ma ne duma moom mu weesu nit ki daanu. dañuy ñaan yàlla yàlla nañ daane Gris Bordeaux bisu la cinq. est euh, boo xam te ne avant mos koo daanee mbër kooku yéen da ngeen ko sa combat Gris Bordeaux ndax gis nañ nag ñoom dañoo yor ay ngalaaju nag. waaye dama nekk fii daf na ma ànd comme cas. ànd ah, comme cas na mbër bu ñu xool waaw noo bu ñu xool nii lay daanu dana ko war a mbot dana ko ko war a wala quatre ans yi moo a kii non du quatre ans yi man mosumaa jàppal mbër temps ah, di nga lewate ne sa bët yi nii non moom mosumaa mosumaa giri day xeex day bëre moo tax man jàng naa yooru moom daal booy Badara ngi fi. Ah. maa ngi dugg si tànk ak Babacar Balde. Hmm. xam na soxob léegi luur la. waaw xam na luur la léegi waaw waaw ah. ay Souleymane Mbaye ngi fi ñoom Ousseynou Mané Sondeel xam na. Ah. xam na ñoom Abdou Gueye Dou Gueye gars yi ñu fi xam na. Hmm. xam na ñooñu ñëpp ñu fi booyee ñooñu ñooñu dalante sama kaw xam na hmm. fan yëpp ñoo may jàpp di ma mbugal mbugal bi méttee méttee saar lii xam na. Demba ñoom ñëpp ñu fi mbay xam na ñoom ñëpp ñu fi ñoom nañ jàpp si combat bi rek. combat bi ñoom laa ko dénk. ah suñu mbëbët loolu lañ bëgg. waaw waaw si ñun ñaar ñëpp. Ah, xam xam mun naa bëgg. giri bañ giri mun na bëgg ma bañ. nañ dañ ñaan yàlla rek yàlla nañ ko yàlla may. mais mbapat dafa xew mun dóor kay bu lay woowee si mbapat kay na la alhamdulilah. sérieusement koo xam dañ ne daa mun dóor bu la woowee sa ah, mbapat doo sant. waaw doo sant bu la woowee sa mbapat <laughs> waaw. <laughs> confiance bu arbitre sifflé di nga xam ni maa la dàq bëre maa la ëpp doole. man yow fii du sax làmb ngay nekk fii di feemu. dëggal sa bopp rek xool dama lay neexal ak géem si teg bësël bësël bi. sa ngaata gi ngay tëj wax ji ngay wax dafa bëri toujours nga def émission di jéem a xëw. arnaque bi da dal dal Kapsin Zambala bi la baana baana bi arrivé Congo cinéma de Paris. 1000 combats ma daan la 1500 fois ma la jàppee nga xam ne doo si dërëm. arnaque bi da lay dal ngay palaxu noonu. dal Nokia dal tonnerre moo koy dal incha allahu rabbi man maa ko laaj maa koy jël maa koy duma maa koy daan si kàttanu yàlla. walaay di nga xam ne góor nga ko saxal. naa la duma daan la. boo xeexee ma duma la boo bëree ma daan la. damaa daan Nokia daan tonnerre te yow laa ciy teg incha allahu rabbi. bii mooy sa dernier dugub. su ma paree si yow continuer sama liste des na ñeneen ak ñeneen. yaa taxaw wax lii waaw bu jour waa na nga taxaw rek dëggal li nga wax li nga xam ne lépp dëgg la.